asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di ñaan borom bi tabaraka wa taala boole nu defal tawfiq lii nga xam ne moom la nu bokk ëndaale ak photo yi ko jiitu te ay nit yoo xamante ne dañoo jiite ay association ci réew mi di askanoo ci sunna demoon ci benn programme bu nekkoon fële ca raba boo xam ne programme mu xam-xam la loolu taxuñoo jóg waaye gannaaw ga ñu daldi takk seenu tukki daal dem jóge Rabat dem Fès dañ gën koo xam ci fas ngir ziyaare ji ab bàmmeel wala ay bàmmeel ca béréb boobee daal di photo wu ne fang ànd ko ak ñenn ci waa bidaa yi nga xam ne ay nooni sunna lañ ak nooni waa sunna loolee non seulement dañoo wuuteeg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xëtt ndigalam ci tere gi mu tere takk ab tukki jëm béréb boo xam ne dañuy jublu béréb ba ngir jaamu yàlla ca jëmmi béréb ba bi maanaa takk ab tukki jublu ziyaareb armeel wala ziyaareb bàmmeel loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo tere même bu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terewu ko jëmmi jëf jooju bu fekkente ne dafa indi ay yàqu-yàqu dafay indi ay yàqu-yàqu ci woote bi waa sunna di woote ci yàlla loolu bu boobaa dees ko waroon a bàyyi lépp loo xam ne day indi yàqu-yàqu ci woote bu waa sunna di yëkkati waa bidaa ba nga xamante ne ñenn ca ñoom ña ngay kokkali waa sunna ci jëf jooju ñiy askanoo ci sunna jëf loole rek dafa doyoon sëkk ci ne bu dee noonee lay amee dees koo waroon a bàyyi même bu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terewul woon kon nga gis ne ñoom seen jëf ji dañ cee boole ñaar bi ci jëkk wuute gi ñu wuuteeg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci takk gi ñu takkub tukki dem jublu jëmmi béréb ngir def fa ak jaamu yàlla te mooy jublu ga ñu jublu dëkk boobee jóge raba dem Fès wala dem Faas ngir ziyaare fa bàmmeel wala ay bàmmeel loolu yonent bi da koo tere danañ ñëw léegi ci texte bi nga xam ne moom la yonent bi wax di ko tere bu doon yonent bi terewul loolu ñoom dañoo tàbbi ci leneen mooy def loo xam ne dafay suufeel waa sunna dafay gàkkal wooteb waa sunna dafay dimbali waa bidaa ñuy kukkali aka bajantu ci kaw waa sunna kon loola daray maslaxa ci woote bu waa sunna nekku ci kon loolu dees koo war a wattandiku rawatina koo xamante ne am na ñu lay xool naw la jàpp ne loo def am na foo ko teg ba boo defee ak njaaxum mu man leen a fitnaal ci seen diine ak ci seen pas-pas kon jëf jooju maslaxa newu ca bu ko yonent bi terewul woon sax waree su koo def ndax yàqu-yàqu yee ca ne mooy ay mafasid kese moo ca ne kon bu ñëwee ci tere gi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere yonent bi moo ne laa tushaddu rihaalu ila illa thalathati masajid deesul takk ab tukki jublu béréb ngir jëm jaamu yàlla ci jëmmi béréb bi nga xam ne béréb bi jubluwaay la ci jaamu yàlla gi ngay def nee na ñetti jàkka dong lañ ko war a defal mooy jàkkaam ak jàkka jane ca Kaaba ak Jérusalem kon takk ab tukki takk ab tukki nag néewuñu nga jógee fa nga dëkk rek dem jubali direct fa nga xam ne fa ngay defee jaamu yàlla googu waaye bu dee da ngaa takk ab tukki bu dagan dem ci béréb def lu dagan la ba noppi takkaat beneen tukki dem ci béréb ngir def ak jaamu yàlla ca jëmmi béréb boobee jublu béréb ba tàbbi nga ci la yonent bi tere comme ñoom nañu jóge Rabat dem Fès nga xam ne diggante Rabat ak Fès mat na ñaari téeméeri kilomètre daanaka kon tàbbi nañ ci li yonent bi tere kon loolu mooy njaaxum gu njëkk gi njaaxum gi ci topp nag mooy yàqu-yàqu bi mu indi ci daawa ndax ñoom dañoo wax ne dañuy askanoo ci sunna booy askanoo ci sunna nag boo defee loo xam ne day indi yàqu-yàqu ci daawa xamal ne loolee nga def lu juunu la yàqu-yàqu bi muy njëkk a indi loolu wéy na mooy xëtt gi ñu xëtt ndigalal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi mooy dimbali gi ñu dimbali waa bidaa ci dëgëral seeni bidaa nga xam ne takk bañ takk tukki ngir dem di ziyaare bàmmeel bu doon ñoom dong ñoo ko def danañ ca wax waaye dañ koo ànd ak ñenn ci ci waa bidaa yi nga xamante ne dañoo fés ci noonoo sunna ak waa sunna nga xam ne li ñuy wax ci waa sunna weñ ca dal dee ñu ànd ak ñoom di def loolee nga xam ne yonent da ko tere mu juuyook yoon wi nga xam ne mooy yoonu ahlu sunna ñu ànd ak waa bidaa di ko def waa bidaa di kokkali waa sunna naan leen seen mbokk yi askanoo ci sunna ne yéen ñi ngi nii tey di def li ñuy def di leen dëgër loolu yàqu-yàqu gu la ci daawa ñetteel bi moo di ñi nga xamante ne ñoo topp wala boog ñoo ànd ak ñooñee nga xam ne ay kilifa lañ yuy askanoo ci ay association yuy askanoo ci sunna ci réew mi ña bokk ca ñoom naw leen jëf jooju ñu jëf nga xam ne dafa wuuteeg sunna indi yàqu-yàqu ci daawa jëf joojee ñu jëf man da leen di fitnaal ñu jàpp ne noona la moo tax ñu bari ci ñoom dañuy sonn lu ne ñu dugg ca comme ni waa tasawuf def nga xam ne seen sëriñ si njaaxum guñ mën a def dañ koy muukuwaale di leen ko layil di ko taawil ñoom it seen jëf jii ñi nga xamante ne ñoo leen naw noonu lañ koy muukuwaale di ko taawil di leen layyil mu mel ne lañu def lu baax la bal dañuy baaxal seen jëf jooju kon loolu lu garaaw a garaaw la kon jëf ji nga xamante ne ñii def nañu ko amul benn maslaxa daawa bu ci ne te li muy jur ci ay yàqu-yàqu ci daawa bi mooy yooyu ñu tudd ak yeneen ngir bañ a guddal waaye nag ba ca gën a rëy nag mooy wuute gi mu wuuteeg yoonu waa sunna ak xëtt gi mu xëtt ndigalal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon noo ngi dénk sunu bopp di dénk mbokk yi ñu ragal yàlla te bañ bàyyi parparloo te farak dëgg te képp koo xamante ne wàcc na yoon mu ak luñ ko naw naw ñu laaye ko biir xamal ko wàcc gi mu wàcc yoon yàqu-yàqu yi muy jur ngir mu mën a dellu gannaaw tuub balay dee di ñëw nañu jiital bëgg yàlla akub yonentam topp yàlla akub yonentam ci topp kum mën a doon nañu jiitu nañu jiital ndigalal yàlla ak ndigalal yonent alayhi salaatu wassalaam ci ndigalu ku mu mën a doon nañuy natt jëfi nit ñi ak seeni wax ci li yàlla ak yonent bi digle te bàyyi par parloo loolu buñ ko deful ñoog ñi nga xamante ne ñooy waa tasawuf ñoo yem képp kuy doxale nii yaag waa tasawuf yéen yem ci ne dañoo jiital topp ay nit ci dëgguk yàlla ak yonent alayhi wassalaam dañoo jiital bëgg ay nit ci bëgg yàlla akub yonentam dañuy bafuwe di nappaaje li yàlla digle akub yonentam doonte ña nga xamante ne ñooy seeni kilifa dañ ko dañoo wuuteeg moom noo ngi ñaan borom bi tabaraka wa wan ñu dëgg muy dëgg te mu xiir ñu ci ñu topp ko wan ñu ay caaxaan bam bañ xam ne lii ay caaxaan la mu xiir ñu ci ñu wan ko gannaaw wallahu aalam